bismillahi rahmaani rahim bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu te di la ziyaara te di la ñaanal ñu yëkkati sunu kàddu ci turu sëriñ Ousmane ci turu mbooloo mi mu jiite di mboolem bunt këri Cheikh Mouhamadul Moustapha yi tudd diiwaanul Muridina ngir ay taxawaay yu jëm ci kër gi ñu di la sant di la gërëm di la ñaanal lépp itam di sant suñu borom rek ci nekk gi nga nekk ci li nga war a ne niru itam li nga doon Cheikh Mouhamadul Fadel dama bis muy laaj mag ñi mbind lu koy taxa rafet mag ña ko wër kenn ko ne wax ci xalaatam sëñ Fallou ni leen bind la koy tax a rafet mooy araf wa day ne fa mu war a nekk niru la mu doon ba ko sëñ Soy bu déggee wax ja yéemu ko sëñ Soy bu nu lool de baax na ci mbind waaye ci nit la gën yaa nga ca la nga war a nekk niru nga li nga doon gàttal nga sa tànk say kàddu bariwut te yitte ju kawe nga yor te sëñ Touba sëñ Maam Mor Jaara da ko bind leetar bis di ko jàmbat gëj gise bi sëriñ bi wax ko ni ko maag bu ñu bokkoon nekk ci benn néeg te kenn ku ne nekk ca la ko war sunu gise du yomb kon nangul nañ la bu baax a baax ci li nga nekk te sëñ Moussa itam da daan wax mag su ma nekkee ci biir ngeen ci biti su ngeen xamoon ca la ma nekk foofee ngeen toog fa ngeen di toog di ñaan yàlla bu mu gaaw a génn ndax ci seen mbir rek la nekk di wax ne yàlla bu ma yàlla jéppi ci ñaan ci yéen te xam nañu foofa rek nga teg sa tànk sëñ Moussa it da daan wax ni wër di wuti xame nekk lu ñu xam da ko gën a wér te li nga xam nañ ko bu baax a baax ci loolu nga ñuy xeertal waxtu ci nekk kon noo ngi lay sant di la gërëm di sant itam sa njaboot ci seen taxawaay sunu mbégte lañ ndax gisuñu leen ci lu ñuy xeeb te waxtu ci nekk itam ñu ngi góorgóorlu ci kawel seen yitte ndax lu baax moom lu ci waay def lu mu rëy rëy jërul xeeb nun xeeb jërul naw nun xeeb nan waaye bu dee ab safaan it lu mu tuut tuut nun rëy na ci ñun ndax seen tuwul ko kon noo ngi leen di sant bu baax a baax noo ngi lay ñaanal nag médaille Murid Saadix di la ñaanal itam nga ñaanal na ko ndax sëñ Tuubaa daa wax na lépp loo xamante ni ab saay-saay mën na koo am am ko du ngóora te ab saay-saay ngërëmal yàlla képp la mun tam moo tax lool lan lay ñaanal di la ñaanal itam nga ñaanal na ko yàlla na suñu borom tappal garaatu murit saadix te tappal ko mboolem ku nekk ci jataay bi sëñ Baara Jaane nag dafa maa nettali ne sëñ Mbàkke Madina moo ko nettali ci aw làmmiñam nee na sëñ Mbàkke moo ma wax ni ma bi ma jàngee ba ñëw sëñ Modou dani ma dama nuyu ji sa maam nee ma dem yendu fa nee sëñ daam di waxtaan ak man daal ni ma sëriñ ma ni ko Mbàkke mu ma sëñ Tuubaa moo ma wax ni ma murit saadix laa ni ko man nag yëguma ko ci sama yaram waaye sa maam moo ma wax ni ma ci nga sëñ Mbàkke ma nee na ma jooy nee na bi ma dalee nee na sëñ ndaam Abdourahman wax ma ni ma sëñ Tuubaa moo ma wax ni ma Abdourahman ma ni ko Mbàkke mu ma murit saa def lu ñuy dimbalee nit la waaye neexut a am na sëñ Tuubaa waxaat ma ni ko Abdourahman mu ni ko Mbàkke mu ni ko murit saa def dara jaam àgg na ci bu ëllëgee mu teg benn tànkam àjjana teg bent bi bunt sawar ku suñ borom àtte ba nga war a dem sawar mu yóbbu la àjjana ku suñ borom àtte ba nga yóbbu àjjana bu ko neexee mu yóbbu la sawarate du ko layoo nee li ma abdourahman kummalul awliyaa yi mbootu yañ leen bootee ba ñu fer buñ ca bootoon murit saadix balaa yor yor mu dagg wasalaamualeykum wa rahmatullah